jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci euh, rajo réew mi FM point 97.5 seen émission pencum réew mi ñu dellu am mbégte dellu siwaat ak yéen comme ni nga xam ne moom lañ ko baaxoo di àndee samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di sànd ak euh, Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw jàll moo nekk ci wàllu machine bi mbokki nag euh, tey ñu euh, invité ministre Pape Diouf mi nga xam ne moom moo jiite du mouvement pour la démocratie et la république di MDR mu nekk mu bokk tamit ci coalition Benno Bokk Yaakaar. waaye euh, nekk tamit euh, membre ci sous coalition groupe euh, des hors coalisés liberté et responsabilité mu nekk tamit membre ba pare nekk coordonnateur bi tey moom la ñu invité ci seen émission pencum réew mi monsieur le ministre ñoo ngi lay nuyu. maa lay fay sëñ Abdou Khadre di la sant aussi ci xam naa bii mooy sunu deuxième daje. waaw ma amoon mbégte bu baax itam ci. ba ñu dajee aussi. li mhm. euh, ci sant. Euh, di la santaat aussi ci euh, sa disponibilité bi nga am di ma invité. Mhm. pour ñu wax ci lu jëm ci li nga xam ne mooy ci réew mi. wax nga dëgg man Pape Diouf laa tudd effectivement nekk président. euh, bon, on l'appelle mouvement pour la démocratie, mais c'est un parti. On a ah. notre récépissé depuis 2017. Ah, okay. Donc, légalement parti la. parti la légalement constitué depuis 2017 la ñu am suñu récépissé. donc euh, alors man nekk nag ci benn sous coalition comme ni nga ko waxee parce que Benno dafa yaatu dafa am ay sous coalition xam nga am déggoon nga ay Benno ak Tanor. Mm-hmm. Euh, benn ak Moustapha Niass. Mm-hmm. Euh, euh, Macky 2012. Mm-hmm. ñun ñu am suñu sous coalition ci biir. tudde ko loolu. coal or coalisé mooy bokkuñu ci benn coalition. te danoo am en tout cas fas yéene am responsabilité ak liberté maanaam. taxaw taxaw kilifa. lan waaw parce dafa amal beneen groupe boo xam ne. Euh, bu du dul noonu amoon na hors coalisé mais am ñu détaché wu. Mhm. donc ni pour différencier par lu nu taxaleeg ñoom ñun ñun ñu tuddee noonu suñu bopp. Mhm. Euh, liberté et responsabilité. liberté et responsabilité mooy euh, nu gëm suñu bopp. Mhm. mais également di wax li nga xam ne moom la ñu xalaat ci loo xam ne moo xew ci biir coalition bi nga xam ne moom la ñu bokk. muy Benno Bokk Yaakaar. di ci jox jox suñu position alors. Euh, li ñuy yan euh, ay mouvement ñoo si bokk wala ay parti politique euh, ñoo si bokk naa la limal sax ñu parce que normal ka ma wax la ñu ci bokk li ma ci bëgg a yokk rek avant ma yegsi ci loolu mooy que ne du ma ne ñëpp mais di ëpp ci parti ak mouvement bi ci nekk membre fondateur la ñu bokk Benno Bokk Yaakaar depuis 2012 donc ñu ngi yëngu ci biir Euh, di ci yëngu donc di def loolu man suñu képp lay kàttan fa ñu dëkk ak ci réew mi yëpp pour que Benno Bokk Yaakaar taxaw alors donc loolu mooy sunu euh, mandarga. xam ne que euh, danoo bokk ci kii mais nag nu am lu ñuy xàmmee. Mhm. alors ma bëgg nag la wax parti yi nga xam ne ak mouvement yi nga xam ne ak kilifa yi nga xam ne ñoo ci nekk bi ci jëkk mooy AJ/PADS authentique muy suñu mag. l'annexe l'annexe Savané ki ci topp mooy AJS Bassirou Sarr xam nga ko aussi Bassirou Sarr euh, CFVE Djibril Mbaye Dekkal Yaakaar Souleymane Sey mhm. Jàppoo Suqali Sénégal Émilie Nanzale MDR man mii di wax ak yow mhm. Pas-Pas Wali Fall mhm. Yes Ousmane Thiongaan Nafoore Yoroba PEP Pape Mody Sow PID du Yaye Wane PTP euh, maître El Hadji Diouf ak sunu euh, sunu gaal arc euh, di sunu jigéen bu baax Juma Dieng Jaxate mhm. donc ñi ñoo bokk ci mouvement bi alors la ma ci war a teg moo di dem aussi danoo organiser wu ba 6 mois yu nekk maanaam rotation day am 6 mois yu nekk am ku jiite su coalition bi mhm. ba man mii nga xam ne wax ak yow weer ci weer la toll laa donc jiite euh, sous coalition bi moo tax bay jiite réunion yi aussi ñuy euh, organiser lépp effectivement ñu jiital ma ci donc loolu moo tax noonu la ñuy fonctionner six mois yu nekk ñu changer pour que parce que ñu xam ne kay ñoom ñëpp ñoo yem. d'accord mais waaw. mais euh, monsieur le mm-hmm. euh, xam naa ci biir émission bi danañu waxtaanee ci actualité mais yéen. Mm-hmm. yéen a ngi nekk ci biir coalition. Euh, taxawal ab coalition ci biir coalition euh, Benno Bokk Yaakaar. Mhm. jubluwaay bi lan la. waaw comme li ma la waxee du sax ñun rek parce que xam nga dégg nga Macky 2012. su mhm. coalition la. dégg nga Benno ak Tanor. Mhm. Siggil Sénégal ak euh, Moustapha Niass. donc am nay sous coalition donc Benno dafa yaatu dafa am ay sous ci suuf yoo xam ne. ay parti yi nga xam ne xëy na ñoo gën a déggoo nangam ak nangam ñoo ca nekk mais ñun ñëpp ci benn loolu nekk. loolu moo tax ñun tam ñu am suñu su coalition waxtaan ba ci parti yi ak mouvement yi taxaw ne ñun ci benn loolu bokk waaye na noo gën a jegeante peut-être xëy bokk di waxtaan di yokkante xalaat ak fexe lu jëmale bennoo ko donc du xàjjeeku dara. bennoo moo organisé wu noonu. soo ko dégloo am nay ah, bàkki 2012 nangam ak yëpp ci biir. donc loolu lañ war a jàpp sous coalition lañ dans la coalition de Benno Bokk Yaakaar. Euh, jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, Pape Diouf. yow nga nekk coordinateur sous coalition groupe des hors coalisés liberté et responsabilité nga nekk président parti bi nga xam ne mooy MDR li nga xam ne tey moom mooy troisième candidature bu président Macky Sall ndax yéen seen coalition seen sous coalition bi Euh, joxe ngeen ci seen position. waaw boo dégloo conférence presse bi ñu def d' abord def nañu compte rendu séminaire bi nga xam ne def nañu ko samedi cinq bi passé ñu ngi ko defoon siège u fii ci Louga Wokam ñii ñëpp tase nañu waxtaan ci point yu bari xam ne naa la ko jox après TDR yi nga xam ne moom la ñu dégagé woon point yi nga xam ne waxtaan nañu ci. baax nag suñu biir mais c'était en interne suñu biir la woon donc loola. Euh, liñ ci mën a génnee ci point boobu nga wax te moom la ñu waxaat ci conférence de presse bi mooy que li ñu gën a soxal ñun fii mu nekk mooy bennoo taxaw bu baax a baax. taxawut. bon taxawut c'est dire mais ku gis li nga xam ne depuis 2012. élection yi fi jaar ni ñu taxawoon ak li xew ci at mii élection maire yi ak élection législative yi ku waxal yàlla xam nekk am na recul bu ci am. nit nag bu nekkee seen doole wàññeeku na. wàññeeku na bu baax a baax. doole benn bokk yaakaar baax a donc comme ñun nag ay kilifa lañu ci biir noo tànn nekk ci benn bokk yaakaar lanu nekk ñu di ko ci daj. laaj na bu lemee ba gis ne nangam ak nangam nu wax ko nag woote ci waxtaan du position boo fiise la dañ ne li nu gis ñun dañuy proposer que ñu seetaat doxalinu bennoo même dem ba soppi tur wi sax parce que fukki at ak ñaar bo am na yu bari yu ci nekk yoo xam ne pour ñu soppi tur pour euh, lu bari loo xam ne dina mën a dëppoo peut-être ak gis-gisu Sénégalais yi loolu la ñu gis. donc de kon suñu waxtaan loolu point boobu ci la bokk muy 2024. Euh, li nu ci tënk mooy waxtaanu mënu ma la wax lépp li nga xam wax nañu ko ci biir mais fan. conclure mais mais joxe gu leen ci. seen ci troisième candidat foofu laa jëm foofu laa jëm. puisque dañ ne nun nan fexe ba bennoo taxawaat nan fexe ba dem ci nit ñi nan fexe ba bennoo am doole waaye nan fexe ba am benn candidat ci bennoo néew na ma sàmba néew na ma demba dañuy waxtaan ci biir bennoo seet bu nu wëree suñuy nit wër sénégalais yi ba pare nag ñu ne diw mooy suñu candidat kon troisième candidat deuxième candidat yooyu man du ma ci dugg parce que mosoo maa dégg ci débat yi ma dugg ci li ma xam daal mooy benn loolu nekk ay parti ak kilifa ñoo ko bokk danoo àndan 2012 fal président Macky Sall àndaat 2019 falaat ko nuy beneen échéance nag dafa laajaat waxtaan nu seet 2010 2024 euh, ban candidat la Benno war a am pour gagner élection yi. d'accord mais monsieur le ministre tey. Euh, dañu liir benn ministre ministre Mbaye Ndiaye. Mm-hmm. dafa wax ne ñoom amuñu plan B amuñu plan C amuñu plan X. président Macky Sall mooy seen candidat 2024 yéen est-ce que loolu ngeen wax yéen sous coalition bi. waaw mais euh, il faut nga eggale aussi moom ci turu APR lay wax. waaw. <laughs> xam nga APR moom mën nañu wax lu leen neex keneen tam mën naa wax lu ko neex mais loolu voix APR la ci biir Benno Bokk Yaakaar waxtaan woo séegul ku neex la wax neex am na ñooñu ci ñun ñu bokk ñu di wax ne kan nangam ak nangam mais loolu. man ñun soxaluñu li ñu soxal mooy danoo ànd 2012 ba léegi di ànd di def di dindi danoo jàpp ne bu nekkee 2024 danoo war a àndaat di defaat ak dindi ku mu neex na nga déclaré mais le moment venu mhm. le moment venu est-ce que coalition groupe des or coalisés liberté responsabilité dana joxe position bu baax a baax kay lu leer la ci troisième candidature bi si waxtaanu Benno Bokk Yaakaar pour candidat ban mooy candidat kan moo lay jiital boobaa dinañ ci wax leen ci xalaat d' accord kooku moom amul. léegi léegi monsieur le ministre tey. Mhm. yow euh, wala yéen seen sous coalition bi reconnaître ngeen que benn Benno Bokk Yaakaar dooleem wàññeeku na bu baax a baax ci élection locale yi génn ak élection législative yi. Mhm. Euh, yéen a ngi ne proposé pour ñu soppitur tur bi. Mhm. ndax yéen reconnaître ngeen ne dooleem wàññeeku na mais est ce que def ngeen benn diagnostic xool exactement lan moo waral dooleem wàññeeku. ok ah, loolu nag lu ñu bëgg ñu waxtaanee ko xam nga am na lu ñu ci tegtal lu ñu ci tegtal euh, gouvernance bi plus plus euh, inclusive ak réunion périodique régulière yooyu yëpp wax nañu ko donc ay diagnostic la ñuy def yoo xam ne yi dinañ ko partager ak ñeneen am nañ ci xalaat baax a baax a baax yoo xam ne mhm. ku ci nekk fa nga dëkk ak la ngay dégg ci feneen am na loo ci xam loolu la ñu bëgg a teg ci taabal ji ñun ñi bennoo bokk yaakaar yooyu leen ah ñun kat jàpp leen na coalition bi nangam ak nangam doxe na ni waral naa doxe nangam ak nangam ba mu ko lëxul gis ngeen li mu jur nan la ñuy def ba loolu du ñu dalaat bu boobaa ku nekk dina wax effectivement la nga gis nga wax ko daal lu lu bëgg lu waxtaan la lu bëgg a woote mooy benn noonu toog seetal suñu bopp parce que li constat bi fi mu nekk xam nga ko xam naa ko xam nga ne lan xewoon bu jiitu ak li xew 2023 euh, bi bokkul. bu mm-hmm. dee bay xëccoo naan assemblée ñoo nekk ma nekkul majorité problème am na. soo demee ci mairie yi ci bari bennoo euh, euh, yeew yi gañe nañ ko donc loolu lu dund lu ñuy dund la. nan la ñuy fexee nag ba loolu nu gis ko gisaat ko ci local gisaat ko ci législatif nu moytu ko pour. mais est gisoo tamit ne ci biir coalition benn bokk yaakaar dafa am benn manque de considération euh, bu am. ci diggante euh, APR ak yeneen parti politique yi ndaxte tey par exemple tey APR du caage ne euh, dañuy jël nitu APR di leen imposer ci yenn mairie yi ak tamit jël ay nitu APR di leen imposer euh, ci yenn post yi moo xam élection législative la est-ce que jàppoo ne Benno loolu moo ko tax mu néew doole. ah boo liiree suñu déclaration bi lu mel noonu la lu wax dañoo bëgg ne une gouvernance plus inclusive bu dajale toutes les composantes ñaareel ba ñu ne ñun. su coalition bi am na ay responsable yu président nommé ñu ko ci gàtt sant waaye nag war na nu gën a am parce que suñu coalition bi amul député amul o conseil amul conseil économique social wax nañu ko donc danoo bëgg sant lañu ci jox waaye nag nañu yokkal parce que ay nit ñu baree bari ñoo nekk suñu ginnaaw ñoo xam ne dañ leen a war a boole ci mbir mi loolu moom wax nañu ko donc ci ci mais mais mais monsieur le ministre xam nga mbir mi tamit il faut que ñu wax ko mu leer. ndax mhm. tey dafa am lu bari loo xam nit ñi ñoo ngi koy rumandaat. Mhm. ndax même bu paasee yéen seen sous coalition bi. Mhm. Euh, ci biir AFP biir parti socialiste biir yeneen parti tamit ñu bari dañ fay ñaxtu ne cër bi ñu leen war a jox. joxuñ leen ko dañu gis na lépp waa APR ñoo ko ngar daajoo. ndax ndax léeg-léeg da nga dem si benn localité boo xam ne euh, ka fa nekkal APR du moom moo fay ëpp doole sax waaye danañu fexe ba imposer ko ñooñu euh, ñu bari ñoo ngi wax loolu. xam nga Abdou Khadre bo boo bindoo ma naan diw ak diw wala APR ak nangam la nit ku nekk boo déggee wax di war a xam lu mu tekki. soo déggee loolu ñeneen wax ko ñeneen wax ko day yokk lekk suñu nekk waxtaan war naa amaat fekkee ab peese ngay euh, <laughs> jaxtu. waaw loolu maa ngi koy dégg. waaw maa ngi koy dégg. maa ngi ma ne loolu lay yokk rek nan xam nga loolu la day day yokk xar mi karaw. mooy nun lu ñuy wax. loolu nga wax da koy da koy gën a dëgëral mooy que ne problème am na. est-ce que dañuy ndangu rek ku nekk di naan sànni xeer naan ndangu ay kilifa lañu danoo waxtaanan ba juboo kenn te dëkkutoon buumu baat kenn ne ku kaay benn bokk yaakaar danoo waxtaanan ba juboo ay mag yàlla ay jëmm lañu am na ñoo xay def nañu parcours avant bennoo kon danoo war bu problème amee au lieu ngay yuuxu fële naan nangam ak nangam ñu ne nag ey nan toog danoo toogoon waxtaan ba ànd mhm. su fekkee ne problème am na loo xam ne lu jur lu baax am na lu ci signalé fii nan waxtaanaat ba loolu moytu ko. waaw mais yéen euh, li tax ngeen bëgg ñu euh, soppi turu benn Bokk Yaakaar est-ce que da ngeen dem ba am ñoo xam ne tuñ ci biir benn Bokk Yaakaar ngeen jàpp ne bu ngeen wutee beneen tur dina gën a nekk loo xamante ni tey euh, lu bees lay doon ñu bari gis ci seen bopp loolu moo tax. waaw xam nga Abdou Khadre yow yaa ngi suivre xam nga Benno ña ca bokkan ak fi mu toll fee wute na. wut am na ñu bari ñoo xam ne bokkul woon ñu ngi ci. ñu nga naan euh, grande coalition euh, présidentielle bon ñu ngi koy wax. xam nga loolu ça veut dire que am na ñu bokkutoon bennoo bokk ci léegi nañ seet wen tur pour que englober ñooñu ñëpp. mais est-ce que communication Benno Bokk Yaakaar amul problème aussi. maanaam maanaam ci ko maanaam ci réunion yi ñu war a def réunion interne yi ak ñi war a bokk ci biir euh, cellule communication bi ñi war a dajee dëgg dëgg ci biir Benno Bokk Yaakaar est-ce que ñooñu noonu ñoo ngi dajee. mais Abdou Khadre loolu da ngay kii rek euh, da ngay dëgëral leen li may wax c'est-à-dire que. du se man damay laaj rek. non non non da ngay dë cest à laaj bi nga laaj day dëgëral li ma doon wax mooy que ne euh, Benno gis na nekk am na problème. du ma wax naan commune parce que boo waxee dañuy mel da ngay viser ay nit. mais ma na problème. am na problème loolu la ñu gis est-ce que problème communication la est-ce que problème de réunion la est-ce que xaj ji ay nit bokkuñu moo moo ko indi loolu lépp dañoo bëgg toog waxtaan ci puisque li nga ci xam ñun ñi nekk ci biir ñoo la gën a xam te am na nu fullaak fayda joo xaye bu ñu toogee dina duut baaram naka lii moo manqué lii moo war lii nangam ak nangam. sunu xalaat. sunu xalaat mën naa bañ a nekk loolu. waaye boobaa nag problème yu bari yi ngay wax danañ ko touché parce que li nu bëgg mooy euh, muy fu mu man di doon ñu seet la fa jagadi ñu jubanti ko. mais est-ce jàpp na ne dina yomb ñu soppi tur bi. bon du yomb mais sunu xalaat la sunu xalaat la et dañ ko défendre bu baax a baax argument yi ci war. bu boobaa nag bu fekkee ne dem nañu ba xam ne majorité bi leneen lañu d'accord aussi nous sommes des démocrates waaye nag sañ nañu ne ah ñun kat li ñuy dégg ci réew mi ak li ñuy gis ak nit ñi ni ñu jàppee benn bokk yaakaar soppi tur wi nangam a naam sot wax naa la ko am na ñeneen ñoo xam ne bokkuñ ci woon ñu ci bari ci fi mu nekk ñoo xam ne benn bokk yaakaar alors. mais est-ce que gisoo tamit ne dafa am ay tête yoo xam ne changement dafa war a am maanaam euh, ci biir coalition benn bokk yaakaar bu dee tey par exemple tey ñenn rek ñoo jiite benn bokk yaakaar di ko doxal di ci wax pendant presque lu ëpp dix ans. tey bu doon tey ma ngi euh, maanaam ma ngi wër ay teet yu bees ay doxalin yu bees nangam nangam euh, est-ce que gisoo ne yenn ñenn nit ñi nekk ci boobu léegi bokk na ci li tax mbir mi dem ba mel nii mu mel. yooyu yëpp yooyu yëpp ay waxtaan la parce que yow gisal nga loolu. Ah? non man gisuma damay laaj. Ah, non muslim man damay laaj man li ma la wax nii du lu ma gis. waaw d'accord lu ma jàpp rek la lu ma jor. dama lay wax ne loolu yëpp mën naa nekk. c'est-à-dire que jàppoo loolu yow. non du question mais. xam nga bu bu buñ ne leen mbir mii ñu nekk am na lu ci nekk loo xam ne war nañu koo soppi bàyyiwuñu bara dara ñu ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw bàyyi ñu nekk ci suuf bàyyi ñu itam doxalinu ak waxin wi loolu lépp ngi ci biir. Mm-hmm. waaye toog naa nag diw da jiitu war jiitu xoo xam polémique leen di boo xam ne du indi du indi ja. nit mm-hmm. xam ne jàngoro bi. Mm-hmm. bu ñu toogee nee naa leen duut baaram. ci li ngay wax lépp bu dee communication danañ ci wax loolu xalaat bu dee ñi jiite kii bi bu dee réunion bi ni muy demee ni ñu convoqué nit ñi naa nga mën a yooyu yëpp am nañu ci xalaat boo xam ne dinañu ko wax mais bu ngeen bu ngeen ko xalaatee ba pare mhm. dangeen ni def proposition yi dañ koy bind jébbal ko njiit réew mi wala waaw loolu sax xalaat la boo xam ne bi effectivement suñu conclusion ñun suñu déjà demandé nañu audience ak président Macky Sall président rencontré ko mhm. def nañu audience bi avant même suñu séminaire bi mhm. donc dinañ ci bu fekkee recevoir nañu entre temps on ira avec les mais on prépare un courrier adressé ko ko xalaat yi nga xam ne tënk nañu ko yépp waxtaan yu waxtaan ñu jébbal ko ko. parce que mooy président coalition bi. jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, Pape Diouf euh, yow yaa njiitul parti bi nga xam ne mooy MDR mouvement pour la démocratie et la république nga nekk tamit président de surveillance. Euh, société nationale de recouvrement euh, nga nekk tamit euh, coordonnateur sous coalition groupe des hors coalisés liberté et responsabilité mais monsieur le soo ba léegi ñoo ngi wax ci coalition benn Bokk Yaakaar ak li ngeen njortu yéen ne moo tax dooleem wàññeeku mais est-ce que tamit du Sénégalais yi ñoom ñoo dem ba ba doyal ci ki nga xam ne tey moom mooy njiitul benn Bokk Yaakaar di président Macky Sall. xam nga man Abdou Khad euh, damay éviter lenn parce que dara ëpp responsabilité naan Sénégalais yi nee nañu man ñime ñu ma loolu man. Sénégalais yi nee nañu nàngam. Mm-hmm. man ñime ñu ma loolu. Mm-hmm. parce que sénégalais bu nekk la muy xalaat waxtaanu ma ceeg moom man li may xalaat ak ñi ma bokkal di waxtaan loolu laa mën a xam ñay xalaat sénégalais yi bu ñu doyalee ci président wala bu ñu doyalee ci kenn occasion dina am. ñu def ko waaye ñun fan toll ñun ñooy coalition la ñu yor gis nañ doxalin boo xam ne bii am na nu ko sénégalais yi jàppe wala nañu ko ci élection yi nan la ñuy doxalee ba sénégalais yi gën a dëppoo en tout cas gis seen bopp wala ñu amaat yaakaar mais du ngeen tamit est-ce que problème bi ci c'est Macky ou bien waaw loolu c'est la coalition benn bopp loolu loolu waxtaan la parce que ñun doona non seulement réunion bi mais soo gisee ñun dañ ne dañuy dem euh, tourner ci département yi wax ak sénégalais yi mbir a ngi nii déglu leen aussi loolu tam c'est une am ndax sénégalais yi nangam ak nangam moo tax ma ne dañuy dem ci département yi waxtaan ak nit ñi déglu li ñuy wax boole li nu xam booy la ma sàmba xam ñu daje nag ne waaw ah ñun kat li ñu dégg ci sénégalais yi li ñu dégg fanu dem parce que sénégalais c'est trop dur mais fanu dem ak ñanu gis lii ak lii lañu xalaat ñun nag nan analyser loolu lépp jër benn dogal boo xam ne bii mooy jox chance benn bokk yaakaar d'accord waaw léegi euh, monsieur le ministre yéen 2011. Euh, yow yaakaar naa ne bokkoon nga si euh, ñu doon xeex ngir bañ président Ablaye Wade am ñetteelu candidature. nest pa pas. waaw léegi est-ce que position bi ngeen amoon 2011 est-ce que même position bi ngeen di am 2014. waaw defe naa Abdou Khadre man li ma la wax leer na 2024 dinañ ci waxtaan. <laughs> ah di ngeen si waxtaan kay. ah mais agsi na presque nag monsieur le ah, ministre. ah déet agsi wul di mais. wax naa la ñun def nañu proposition. ci sous coalition la ñu. waaw Benno Bokk Yaakaar bu toogee loolu lépp danañ ci wax. kooku amul yàkkamti. da ngeen si wax. ah bien sûr il faut ñu am ci position bu leer sénégalais yi. kooku kay mën na naxañ naxañ déedéet. Mhm. danañ toog Benno Bokk Yaakaar. ne mhm. élection yi di am nii la ñu ci bëgg a taxawee. kooku moom dana am. Mhm. allah kulli donc. Euh, boobu amul amul amul bilaa xilaas. amul kii. mun mënta ñàkk. Hmm. mën wax ak sénégalais yi. d'accord xanaa duñ toog ba ba 2024 nangam déedéet dinañ ci waxtaan ne sénégalais yi lii di ñëw lii mooy position. d'accord benn bokk. Euh, monsieur le ministre gis nañ gouvernement bu bees président Macky Sall euh, taxawal ko. Hmm. ñoom amal nañu ay concertation ci lu jëm ci wàllum wàññi njëg gi mais gis nañ ba léegi euh, njëg yi ma ngi gën di yokk. Hmm. waaw d'abord Abdou Khadre fu ñu taxaw foofu. vraiment wax daal di aussi euh, sant président Macky Sall ak gouvernement parce que euh, gouvernement aussi bu nekk cim réew war nay déglu nit ñi xam lu ñuy dund ba mesure yi muy jël euh, parce que dañ Sénégal lañu fi nekkal nekkaluñ fi seen bopp kon lu ñuy war di def mooy luy yombal dund ak Sénégalais yi lu leen di jëmale kanam ci loolu lañ nekk mesure yi nag néew mën na régler problème yi mais. lu baax la loo xam ne sénégalais yi war nañ ko saluer aussi parce que wàññi njëgu diwlin wàññi njëgu ceeb wala njàng loolu lu am solo la est-ce que mën na fa gën a wàcc wala yooyu débat la boo xam ne bii aussi mën nañ ci continuer waaye nag d'abord nañu ko féliciter ci loolu moo gouvernement la ca topp mooy deuxième étape mooy application bi nag parce que wax naa keroog suñu conférence de suñu problème Sénégal mooy suivi ak contrôle. Mm-hmm. na gouvernement bi ak ñi nga xam ne moo nekk c'est sa responsabilité muy corps de contrôle yi nañu taxaw nañu war a taxawee bu ko defee mesures yooyu am njariñ mais bu ñu ko waxee nii rek te application amul suivi amul amul njariñ alors la ca des mooy mooy wax aussi sénégalais yi aussi puisque ñun tamam nañ ci wàll dañuy jënd dañuy dem ci boutique yi boutique quartier boo dem boutique nga fa nangam wax naa ko keroog dama ne nun itam nan sol sunu daal am fulaak fayda parce que maslaa aussi moo yàq sunu sunu réew mi diw sama mbokk la yor na boutique wala noo bokk ci quartier bi nanga mën nengo am na lu muy def loolu du ma ko du ma ko signalé kooku c'est pas bon ku gis ci boutique parce que ñun mënuñoo jël ay sanctions waaye man noonu nag ne boutique sàngam gis na nañu fa sàngam dëppwul ak lu gouvernement bi jël comme mesure bu boobaa corps de contrôle seet loolu mais ñépp ci war a taxaw parce que ñépp ci am njëriñ parce que ñi nga xam ne sax yàlla may na leen kàttan am na ñu ay mbokk yoo xam ne toujours ñu ngi yaakaar ci ñoom kon ñu appliquer mesure pour mu njëg gën wàcc je crois que ñëpp a ci am intérêt donc ñun ñëpp gouvernement ak citoyen simple nañ ci taxaw pour que mesure yooyu bu ca pay nag bu nu ci mënee jàll ci leneen puisque am na lu yaakaar feek ci kanam pétrole bi gaz bi nangam ak nangam bu génnee am na yu bari effectivement sénégalais yi dinañ ci gis seen bopp donc nu taxaw ci loolu foofu lañ toll fi mu nekk xam ne yeneen nu ngi ko yaakaar ñëwagul waaye fii nu toll nan fexee ba mesures yooyu président jël su ko mënee yokk itam ci yeneen fànn xëyru waaye déjà yi mu nañ ko saluer ba pare nag jàpp ci. waaw mais monsieur le ministre tey euh, est-ce que politique bi nga xam ne tey moom la état bu Sénégal waroon na def ci lu jëm ci euh, bay dundee wala lépp lu ñuy lekk rek euh, mu ñoree fii. est-ce que politique bi ci état bu Sénégal waroon na def dëgg ba ñu am benn indépendance alimentaire loolu est-ce que politique boobu am na. waaw Abdou xam nga boo euh, du ma ci sori parce que. Ah, xam nga nekkoon naa nekkoon naa nekkoon la ministre de l'agriculture kon wër naa Sénégal. Ah. am na lu bari lu ma ci xam loo xam ne. xam naa effectivement loo euh, ma xam ne lépp waaye nag am na lu ma xam ci Sénégal loo xam ne suñu góorgóorloo tuuti. Mm-hmm. yaakaar ne loolu day féete suñu ginnaaw dama lay wax dama lay dama lay nettali rek benn anecdote Euh, bi ma nekk ministre de l'agriculture dama recevoir ñetti ingénieurs yu duggi Pakistan Pakistan ak ingénieur agronome ñu ñëw ne dañoo bëgg a seet Sénégal mbéyam Sénégal nu muy doxe ma boole leen ak techniciens yi ñu dem dans la vallée mais xam nga ingénieur bu ñëwee lu ñu ma wax da nga leen monsieur le yéen daal bay dundee vraiment warul nekk seen problème kooku moom du dara ci yéen mais da ngeen a war a bokk ci réew yi gën a mën a exporter mbay ci àdduna bi mu ne est-ce que xam ngeen ne ñun Pakistan dañuy jël ndox di ko xëcc ba 1000 kilomètres pour am fu nu béy parce que xam montagne a fa nekk. Mhm. mais bu ñu la waxee li ñuy produir ñoom mu ne yéen amu leen montagne ndox maa ngi nii bu avez un climat exceptionnel boo xam ne bii macha allah kon lan moo leen dese kon bay dundee moom du zéro zéro la ci yéen. li ñu wax kay mooy da ngeen a war a bokk réew yi ëpp lu ñuy bay di yóbbu bitim réew xam nga ñoo gis nañu. tam xam nañu kon ma ne effectivement jàpp naa ne autosuffisance nag amul maanaam lépp loo soxla nga di ko bay mu amul fenn ci àdduna man nga nag bay loo xam ne lii bu bitim réew ñëwee nga dund bu ñëwul nga dund loolu mooy sécurité alimentaire maanaam tey bu doon lekk ceeb ba suñu ceeb jeex wala wala ñuy importer ceeb fële tëj fekk ñun dans la vallée am na nañu ceeb wala Casamance am nañu ceeb du nu faale euh, ku kuy indi ak ku ñàkk indi waaye nag bu ñu soxla ne ah ceeb Pakistan kan mën nañu koo ñam bu ñu neexee nu dem jëndiku bu fekkee ne am na sénégalais yi ko bëgg a jënd ko dara interdire ko mais terewul ne bu fekkee ne amuñu boobu am nañu lu ñu lekk loolu mooy euh, sécurité alimentaire bay loo xam ne lii su bitim réew doxee mën nga faa jëndi bu la neexee waay bu jotee réew antu antuwul nga am loo lekk guddee ba léegi lan mooy suñu problème problème bi bon je crois que gouvernement banque yi gouvernement banque yi. non bu ci nekkoon kay mu saafara mois. waaw waaw waaye nag bon xam nga àdduna yemul ci benn. xëy na lii ñuy wax loo xamante ni mooy mooy euh, bu ñu ko doon ay option mooy option un. waaw waaw mais mais xam nga nii ñu ko ak euh, accentuer autosuffisance en euh, souveraineté alimentaire quand même il faut dire que mosuñu ci accentuer wu nii ci sama gis-gis sama gis-gis léegi donc wér na ne léegi. mais non pas pas non pas zéro résultat quand même bon il faut reconnaître que. tamit man zéro résultat laa gis mu le ah, ministre. ah waaw sa sa sa gis-gis la. ndax amul lenn lu ñu amul amul sécurité <laughs> alimentaire. waaw sa gis-gis la. waaw man zéro résultat ndax lépp la ñuy jéggaani ba tey. waaw pas lépp quand même. Ah. bon li ma wax wax daal mooy li ñuy dundee ñun. ma wax daal mooy. su fekkee ne. waaw su fekkee ne jël nañu loolu. pour bay lu ñuy dundee. loolu nag dafa am lu muy àndal maanaam il faut na am problème problème mu ndox ñu réglé ko. problème ndox cest à que yàlla may nu ndox ci suuf ak ci kaw loo xam ne warunoo bu tawee baax na waaye bu tawut tam war noo man di béy damay joxe toujours exemple Maroc dem naa fa ay yoon Maroc ñoo leen ëpp ndox ndox ñoo leen ko ëppale mais terewul dañoo investir ci irrigation ba nga xam noor ak nawet ñu ngi béy te ñu leen ëpp ndox pourtant donc plan bi mooy d'abord maîtrise de l'eau foo nu am ndox boo xam ne bi bu tawee nu bay bu tawul nu bay te mën naa nekk te yàlla mën naa nekk. Euh, euh, yow léegi volonté bi moo des. yow Abdou xoolal dexu Sénégal. xoolal dexu Casamance. xoolal dexu nag volonté bi moo des. voilà donc je crois que loolu yëpp li ñuy ñaan mooy lii nga xam ne président Macky Sall ak gouvernement bi décidé na ko ñu dëmbët ci fulla ak fayda joo xam ne ak moyens yi nga xam ne mooy indi loolu. fois que. man nag monsieur le gis benn manque de volonté ci état bu Sénégal ci lu jëm ci wàllum agriculture. waaw mais je crois que aussi il faut nga ñu gëm aussi président li muy wax ak moo gouvernement léegi nag. mun mun mun noo xëy xëy nag ne nangam ak nangam jël nañu mesure ne bëgg souveraineté alimentaire li nu bëgg ñun ñooy xalaat ne que la koy maye nangam ak nangam la bu nu daxee nag at ñaari at nangam ak nangam mu évaluer mais tëba tëb rek nag sànni lépp ca mbedd moo aussi du loolu du mais euh, gis nañ tamit euh, président wax ci lu jëm ci wàllum euh, location bi ñu gis na 2014 voté woon nañ fi loi boo xam ne mën nañ ko tuddee sax saafara bu jur jàngoro. ñëwaat na nee na dañuy wàññi location bi est-ce que jàpp nga ne du mel na meloon 2014. waaw mooy li ma doon wax sànq rek. amay jël masur moom mën nañu ko. mais lay problème bi mooy nan la ñuy jëlee application bi. nan la ñuy contrôler ba loola ñu appliqué ko. bañ a yem ci wax ji. ci wax ji boobu daal laa xalaat nekk moom loolu moo war. Mhm. waaw mesure bu rafet na. baax na comme ni nga ko waxee jëloon nañu ko fi lu tax antuwul loolu la ñu war a analyser nag jël ay mesures yoo xam ne sur le terrain danañ ko mën a appliquer. waaw mais euh, monsieur le ministre Pape Diouf euh, tey damay dégg ñu baree baree bari ñoo ngi wax ne. Euh, fi crise mondiale bi toll euh, président Macky Sall tey fi nii boo xoolee Sénégal bokk na ci euh, réew yi nga xam ne sax fi ñu UEMOA nattal ne buñ ko weesu ci lépp Sénégal presque passé na ko mën nañu wax ne soixante-quinze pour cent pays tey te Sénégal li mu dafa bëri ba tey ndax suñu budget bi sax dégg naa ministre bi nee na déficit budgétaire bi il faut plus de mille milliards ñu leb ko. léegi est-ce que gënutoon yomb institution yi nga xamante ni ñenn ñi jàpp nañ ni amul benn solo muy conseil économique social environnemental d'ailleurs sax Idriss Seck ngàññoon na ko euh, avant ñu ko koy jox euh, ak au conseil des collectivités territorial beneen tamit état bi mënoon naa wàññi ministres yi euh, ndax ndax am na ministères yoo xam ne waroon nañ leen mën a mën a mën a boole est-ce que loolu tey su amoon du gën a gaaw li ñenn ñi xalaat. waaw Abdou Khadre xam nga nit ñi moom ku ci nekk euh, dangay wax sa xalaat da ngay wax sa xalaat loolu moom c'est normal c'est normal man yaakaar naa aussi damay rafet njort que nekk président Macky Sall ak gouvernement am ci biir réew mi lañu dëkk am fi njaboot am fi mbokk am fi ay àndandoo kon réew bi bu mettee dinañ ko yëg ak lu mën di doon mën di doon te yaakaar naa ne gouvernement bu nekk sama gis-gis mooy dinga xool sa dëkk fi mu toll nga fexe ay jéego pour jëmale ko kanam bu bëgg na leer moo di nekk loolu ngeen di wax ay euh, au conseil ak nangam ak nangam je crois que président Macky Sall mesure yu muy jël ker bu demee ba gis ne que moom kat gouvernement bii muy doxal politique bii muy doxal nangam gàllankoor na ko je crois que boobu dina jël ay matuwaay yi ci nekk. waaye nag naa est nekk budget naw yooyu yëpp gis naa ne daal li ma jàpp moo ne. Euh, institution yooyu bu ñu koy taxawal defe naa du pour rek euh, euh, yor ay nit yoo xam ne amul lu njëriñ Sénégal. je crois que loolu mel ni institution yooyu tamit ñu bari dañ la ñuy laaj lan mooy seen njëriñ. voilà voilà loolu nag état bi. xam nga yow yaa ngi dégg nit ñi di ko. voilà maa kay maa ngi koy dégg bu baax a baax. koy dégg mais nag euh, loolu itam président koy dégg. ñëpp a ngi koy dégg. est-ce que maintenant ci politique bi ma la wax ne que sénégalais yi ku ci nekk yaa ngi wax sa coono. président Macky Sall ñu fal ko pour mu faj coono jàmbur yi coono nit ñi. yaakaar naa ne moom lu ko gàll war a gàllankoor ci loolu. yaakaar naa ne dina ci jël di mu ci war a jël. d'accord léegi monsieur le ministre euh, assemblée nationale euh, yéen Benno Bokk Yaakaar euh, da ngeen doon am majorité man ñeen ñi sax tuddee ko buum di buumi. maanaam lu leen neex daal assemblée nationale moo fa doon am. léegi nag askan bi wàññi seen doole bu baax a baax a baax. ci élection législative yi jox ko ñi nga xam ne ñooy opposition bi euh, ñenn ñi jàpp na loolu sax dafa baax ci li nga xam ne mooy euh, mooy démocratie euh, lan moo ci sa xalaat ci loolu. waaw démocratie lañu lañu wax. lañu wax démocratie maanaam parce que bu fekkee ne Abdou Khadre ren dañ ne assemblée dañoo sàcc ba fal ay député benoo dafa sàcc ba feesal assemblée kooku ŋàññi bu ñaaw ci ñun mais nag sénégalais yi tànn. dégguma fenn ku ne ah en tout li may dégg élection yi ci yoon la jaar. donc yi ñoo tànnal seen bopp. kon loolu dañu ko war a rafetlu dañu ko war a rafet lu parce que euh, bawol bawol nga comme man. day wax naan ginaar wéetu wàllu gëse benn tànk. donc lu ko neex. loolu. jaay doole daal jeex na dafay jeex dafay jeex alors donc man dama koy rafetlu d'abord que sénégalais yi ne. diw ak diw moo ñu doy ñu dem assemblée ak fu ñu mën di bokk ay sénégalais lañu mais ñooñu yóbbu foofu nañu fa taxaw nag pour jëmale Sénégal kanam. d'accord opposition pouvoir. opposition pouvoir ña fa nekk daal ñu fal euh, sénégalais tànn leen ñu nekk fa nañu xam ne askan loolu lañu fa nekkal nekkaluñu fa seen bopp nekkuñu fa bloqué réew mi. na nañu fexe ba li tax sénégalais tànn leen ëllëg si ñu ne ah ñun kat bu ñu yëgën gaaw koo def. waaye bu ñu ne accam ñun kat nangam. amu leen majorité moom. voilà amu leen majorité de. baax na sénégalais yi tànn loolu mais nan ko accepté du fii rek la ma sa xew. xoolal France xoolal France gouvernement France bi mu nekk assemblée ba mais terewul ñu ngi liggéey ñu ngi wax la ñu war a wax nangam ak nangam mais ñu ngi liggéey. ku nekk daal na def sa bopp ne. mais yow d'accord nga tamit ñuy ubbi ay enquêtes parlementaires pour leeral alalu réew mi yooyu. mais man loolu baax a bax d'accord nga ci. baax ah, loolu lañ ko loi bi santaane di enquête parlementaire pour que ñu seet lépp loo xam ne lii jalgat loolu leeru loo xam ne assemblée rôle am mooy loolu mu def. Euh, euh, ay rapport ay rapport joxe ko ne nangam ak nangam ak nangam am réew bu ñu bëggee mu dox noonu la. man je crois loolu. mais monsieur le ministre il faut que benn laaj ci mbay mi ndax yow da nga jiite woon ministère de l' agriculture. Mhm. te ñun dañu dégg président Macky Sall ne relance économique bi euh, daf cee yaakaar ci mbay mi ci lu bëree bëree bëri ñu gis ne euh, ren da ngeen euh, da dañoo fixé prix gerte gi deux cent soixante quinze. te baykat yi ñoom ñoom ñu bari doon nañu wax ne dañu bëgg ñu def ko cinq cent francs ndax gis nañ ne semence yi dafa yokk beneen bi engrais bi cher na. Euh, beneen bi mbay mi nam waroon a baaxee baaxeewu nii noonu état bi def ko 275 est-ce que jàppoo woon ne tey te yéen nag monde rural bi rek presque moo leen dese ci ci wàllum élection ndax ndax élection yi passé capital régional yëpp da ngeen ko ñàkk mën naa la ko lima léegi nii. ndax sax opposition bi ñoom nee nañ. Mhm. seen seen campagne fu nii maanaam seen wut nemmeeku tur ak yooyu dañuy dem ci monde rural bi ndax monde rural bee dese Macky Sall yéen est tey euh, politique bu normal. Mhm. ngeen jéem a jëndee gerte gi 500 francs au moins sax. ngeen jàppale baykat yi suqali monde rural bi. waaw loolu euh, li ma ci njëkk a wax mooy que ci sama gis-gis mooy prix bi day nekk kenn mënu ko yées. parce que 175 yi moom kenn mënu ko yées. mais je crois que terew yu ëllëg si biir. ku mën a jënd lu ko ëpp jënd ko. maanaam fermé wu ñu ne état bi doo war a jënd nangam la koy jënde keneen du jënd ci loolu laa gis. Hmm. donc bu ne 275 kenn waru ko yées. donc bu ñu ko mënee yokk di béykat yi dem bay gis ñu leen koy jaay jëndal téeméer ak ñaari téeméer man d' accord naa ci. parce que mbay dafa metti d' abord. Euh, monsieur le ministre euh, euh, gerte gi xam nga tey. dañ ko fixé noonu ku jaay maanaam nag ku bëgg a jaay bu la neexee mën ngaa jaay au delà de cent soixante quinze mais bu boobaa état bi est-ce que euh, dina mën a am dina mën a am gerte wala est-ce loolu ndimbal la aussi ci baykat yi est-ce que état wartu na ñëw imposer dooleem jënd gerte gi si baykat yi. waa xam nga libéralisation la ñu wax aussi xam nga amoon na bu njëkk bay nekk ministre de l'agriculture euh, Sonacos moo doon jënd. Mm. wala Sonagraines ñoo doon jënd gerte gi. Mm. ba dañoo amoon dañuy jël euh, donc financement tegal ay ay ay point de collecte yoo xam ni. Euh, fa la ñuy jëndee gerte gi di indi ci Sonagraines mais depuis booba effectivement xam nga dafa am changement maanaam euh, bon yàlla Sonacos ki jënd toujours mais nag bàyyi nañ ñeneen ñuy jënd. donc du état bi rek mooy jënd fi mu nekk gerte gi donc déjà c'est une très bonne chose alors euh, impôt état bi imposé ko aussi mën naa jur leneen aussi. comme lan. mais xam nga li fi xewoon euh, problème bon MP yooyu ñu doon wax nangam ak nangam yoo xam ni bo sabotage la woon ci biir mais demal nañu ba jënd loo xam ne lii bari woon na parce que à l'époque on avait cinq cent mille tonnes lañ lañ jëndoon y une production de un million de tonnes donc mënuñu woon demal nañ ba mu mënuñoo jënd gerte gi yëpp donc loolu mën naa am aussi ce qui fait que bi libéraliser ko par la Sonacos mu mën a jënd comme ñeneen ñi je crois loolu aussi. mais mais mais monsieur le ministre waroon nañu def nag benn politique maanaam ñun dañu gis ne wàllum industrie daal parce que defuñu si daal ndax gerte gi waruñu woon a yem ci. Euh, ci lool rek. loolu d'accord naa ak yow loolu d'accord naa ak yow parce que euh, gerte gi xam ne bu fekkee am na bonne campagne agricole bu fekkee ne mbay mi dox na ni mu war a dox je que bu fekkee ne am ay usines koy transformer sur place euh, njariñ la pour réew mi d'abord ñi ciy liggéey. ci liggéey mais être ñu am production sur place boo xam ne bu ñu soxlaa diwlin du ñu ko wuti fenn parce que du ñu yem rek jënd gerte ak jaay. d'accord loolu moom d'accord naa ci. jërëjëf euh, monsieur le ministre Pape Diouf euh, yow la ñu invité tey ci rajo réew Rewmi FM ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot 15h jàpp 16h léegi fan yi euh, passé déggoon nañ lu jëm ci wàllum amnistie ba ñenn ñi tudd Karim Wade Khalifa Ababacar Sall ndax yow ànd nga si ñu amnistier leen. waaw euh, Abdou Khad na nga seet tuuti ci Google ak yooyu am na lu ma ci waxal temps bi ñuy wootee euh, dialogue national bi defar naa ci un texte pour dire que dialogue national bi bu mu am limite maanaam nañu poser lépp loo xam ne yaakaar nañu Sénégal bu ñu ko defee nu am jàmm. Hmm. waxal naa code électoral bi code électoral. nañu ko saytu bu baax parce que Afrique lu ci bari ci coow ci élection lay jóge am ko réglé am ko électoral boo xam ne dafa leer ci bopp nit ñi. demal naa ba wax ne sax est-ce que duñ ko traduire en langue nationale nga xam ne sénégalais bu tiim bu fekkee wolof nga wala joolaa nga xam ne ko lii la wax. ma yokk ne nag bu ñu limité dialogue national bi ci ay ñetti nit ñeenti nit wala ay groupe politique déedéet na yaatu parce que naa leen. ne dans le passé amnistié nañ ay nit yaa ngi rappelé wu les les les les du temps de Diamacoune yaa ngi rappelé wu la la loi am na ñu ci bàyyi ñoo xam ne man nañoo jàpp ne xëy na lañ leen doon jiiñ nangam man nangam am na mais dañoo def loi amnistie pour jàmm am ña ko doon def yaakaar naa jàmm lañ doon wut ba def loi amnistie donc loi bi aussi bu fekkee am na man d'accord naa ci. lépp luy indi jàmm ci Sénégal man d'accord naa ci. lépp luy indi jàmm. bu fekkee ne jàpp nañ ne diw ak diw ak du soit dañoo tooñ soit dañ leen tooñ te ñu mën a jël loi boo xam ne parce que man xam naay doomu aadama yoo xam ne dañoo reyee nit loi amnistie boobu agent moo leen ci génne te ñëpp xam ne dañoo rey nit. alors léegi kon li may wax moo di nekk man d'accord naa ci loi amnistie am. waxuma Karim ak waxuma Khalifa Sall mais ñëpp ñi nga xam ne yaakaar nañ ne amal nañ njariñ Sénégal mën naa indi jàmm Sénégal man d'accord naa ci. mais monsieur le ministre tey euh, lu jëm ci élection euh, présidentielle euh, ak kaawu Ousmane Sonko mi nga xam ne ñenn ñi jàpp nañ ne état bi Sénégal daf ko bëgg a fàkkatal ak coowul Adji Sarr bi nga xam ne tey àdduna bi waxtaane nañ ñu ñu bare bare ñàkk ci seen bakkan yow lan moo ci sa gis-gis. alors li may jëkk gis wax naa ko ci benn rajo tey xam naa di nga ko dégg après que homme politique ñi di ko jàpp ak ak interpellé yàgg na fi man mii dem naa kaso. ah bon ah oui. taw Diouf. teenu déggoon nga ko. oui dem naa ci kaso. def naa une semaine prison Diourbel avant ñu di ma àtte on m'avait condamné ak ñeneen Abdoulaye Wade ñaati yoon la dem kaso. donc dama bëggul ñu jàpp ne lii xew mu ngi soog a xew. du lu bees. du lu bees cest à ñuy jàpp om politique wala keneen ak keneen yàgg na fi. mais Macky Sall bëri nag. waaw waaw waaye yooyu yéen a xam bon ku nekk recette mais dama jàpp ne daal. yàgg na fi am. encouragé wu ma ko nag. àndoo ci tamit. waxuma encouragé dama ne encouragé wu ma ci ñuy jàpp ay nit même bu dul set bu dul ay homme politique même bu dee kii ñuy jàpp nit bu fekkee ne mënta ñàkk. ñu def ko mais bu mënee ñàkk ñu bàyyi ko la mooy nan fexe ba yoon bi nga xam ne mooy garant moo xam ne moom moo taxam réew mën a taxaw yoon doxal yoon ku tooñ ñu xam ne tooñ na ku tooñ ñu bàyyi la parce que sénégalais yi ñooy fal sénégalais yi ñooy fal. waaw mais monsieur le ministre dañoo gis ne tey kaawu xalifa sàll taw kaawu Karim Wade. Euh, ñenn ñi jàpp ne foofu lañ bëgg a jaar ak euh, ak Ousmane Sonko nee nga sax coowul politique ak jàpp politicien dugal ci kasu bi yàgg na fi waaye dañu gis ne ci ci ci régime Macky Sall bi moom ñi ci jàpp dugal ci kasu bi dafa dafa bëri. bon dafa bëri dafa ñàkk daal li ma mën a xam daal mooy te loolu fekkee nga ko man fekkee naa ko jàpp homme politique moom tëj ci kaso bi moom yàgg na fi encouragé wu ma ko aussi. mais li xew nii lépp est-ce que yow jàpp nga ne waroon naa mën a mënoon naa ñàkk. waaw mais bu fekkee ne ah, wax naa keroog euh, Abdou Khadre dama ne man dama masa jàpp sama àdduna nit ku nekk lay yelleefam nañ ko ko jox maanaam état bi war naa dox ba ku nekk citoyen bu nekk lay sa droit ñu bàyyi la ko garanti par la loi mais nag citoyen bu nekk itam war naa xam ne am réew dafa am loi. lu la waa tere nga bàyyi ko suñ joxee ku nekk la la wàll ku nekk moytu la nga mën a moytu jàmm am. waaw mais mais tey Sonko dafa jàpp ne dañ koo complot. waaw kooku nag Sonko xam moog justice xam man am na loo xam ne mënu dugg la mu def lañ koy toppee man xaw ma ko je ne suis pas dans le ma mën a xam daal mooy justice daal lu muy def amul par parloo na def li nga xam ne moom la yoon sant am na loi lu mu teg. diw bu defee nangam la nga ma war ci kawam diw bu defee nangam war ak ku man di doon nag. mais gisoo ne dossier la boo xam ne waa Benno waa APR dañ see dugal seen loxo. kooku mënu ma ko wax. puisque fekkewu ma boolewuñu ma ci kon du ma wax lu ma xamul li ma mën a xam daal mooy man daal justice laa wax ne su fekkee ne li ñuy toppee ñooñu mu dee sonk wala keneen ak keneen na fekk na dëppoo yoon. d' accord voilà léegi arrestation euh, Pape Alé Niang lu ci sa xalaat. boobu itam day dugg ci li ma doon wax rek keroog itam laaj nañu ma ko mooy du yéene parce que ay sénégalais lañ comme ñu muy Sonko muy Pape Alé amul kenn koo xam ne dinaa ko yéene muy dem kaso parce que man jaar naa kaso xam naa lu mu tekki. mais Macky moo ne woon du tëj benn journaliste. waaw xam nga am na ku ma ko waxoon nee naa ko nag laaj ko comme moo ko waxoon man waxuma ko woon. mais est-ce que jàpp nga ne jar na tëj bu doon yow. mu ne bu doon yaa nekk position Macky. waaw mais xawul lu mu def. Pape Alé xam nga xamul lu def. déggoo dégg nga ko waaye mais. maa ngi dégg ñuy wax mais xaw ma exactement lu tax ñu jàpp kon du ma dugg ci aventure wu loo xam ne lii euh, du ma fekkewu ma xaw ma la mu yor xaw ma ña ko jàpp lan lañ sukkandiku bu jàpp ko kon ba ciy maandu damay ñaan rek di ko ñaanal moom parce que Pabaale xam naa ko bu baax a baax a baax kon damay ñaan bu fekkee ne ay jafe-jafe la nekk. ma ñaan yàlla yàlla génne ko ci loolu daal laa mën a ñaan waaw waaw waaw jërëjëf euh, monsieur le ministre bala ñuy jeexal rek euh, ñu daal di euh, ñëw ci li nga xam ne mooy seen seen sous coalition bii nii mm-hmm. kañ ngeen bëgg a commencé ay tournée wala defu leen ay tournée ah kay dañ ko commencé mais jàppaguñu daal jàppagu leen daal donc comme li ma la waxee fi mu toll mooy d'abord dinañu informer le président la coalition si lu nga xam ne mm-hmm. di séentu itam parce mën naa am ci du yàgg xëy na waxtaan am ci der benn benn bennoo ko defee jàppaguñ daal daal bu fekkee ne am na daal bu ñu jàpp pour def ko daal loolu ñor na daal lu ñor la daal loo xam ne lii incha allah dina am soobee yàlla mais bu boobaa di ngeen yëg di ngeen yëg. d'accord jërëjëf euh, monsieur le ministre ñu lay sant di la gërëm. maa ngi lay sant Abdou Khadre vraiment di la santaat bu baax a baax. jërëjëf waaw di ñaan daal tam seen. seen rajo bi seen télévision bi. Euh, yàlla na ko yàlla jëmale kanam. incha allah incha allah. jërëjëf euh, monsieur le ministre Pape Diouf mbokk yi moom moo nekk nag euh, njiitul li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum société bi nga xam ne mooy société nationale de recouvrement moom moo fa lépp lu jëm ci wàllum surveillance mooy PCA ba président conseil d'administration ba. moo jiite tamit parti bi nga xam ne mooy mouvement pour la démocratie et la république. Euh, nekk membre ci sous coalition groupe de hors coalisés liberté et responsabilité d'ailleurs sax moom mooy euh, coordinateur bi moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm di rafetlu aussi disponibilité am euh, mbokk li mu nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di ak ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo mu nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.